tey maa ngeen a ànd il fait zéro heure passée may fëgg ci buntu kër yi ñu may ubbil may dugg yaay ak papa yi di yeewu di waxtaan ak ñun ci xel mu dal maanaam loolu lu ñu liggéey la ci gox bi ñoom du Idrissa sekk leen intéressé du mag Sall leen intéressé du Thierno Alassane moo àndoon sax moo leen intéressé leen intéressé mooy seen doomu gox muy Habib Kane mi nga xamante ni seq naa ñoom jàmm nangu ñu doon ay waajuram jigéen ñi nangu ci góor ñu doon ay waajuram nangu ci jigéen ñi ñi nga xam ne moo leen mag ñu doon ay sëram ñi ko mag doon ay grande sëram loolu moo ma may tey force bi ma am ma ñemee campagne naxu ma ranu leen ranu leen naxu ma ndax dëgg lañu ñu àndee ànd ñu ci dëgg kon tey su ma tëbee rek dem feneen te li ma war def ma ko fii dinaa mën lu ma ca fekk rek maa ko teg sama bopp li olof naan boo wàccee sa ànd àndu jàmm boo toog loola fekk yaa ko teg sa bopp. xam nga euh, victoire bi dañ koy wut naa les trois communes mais ñun li ñuy gën a soxal mooy école Malick Guèye bi ñu dëkk euh, mais bu ñu amee école Malick amuñ amuñu yeneen centre de vote tamit ça devait autre chose mais notre choix c'est d'avoir les trois communes particulièrement celle de l'ouest bi nga xamante ni fa la ñu bokk mais nag dañ naan euh, bool booy tijji day am kubéer. te kubéer bi boolu boolu commune ouest bi kubéer gi école Malick Kéré la. boo xoolee élection yi passé ñun la woon ànd ak ñu àndoon président Thierno Alassane nekk RV. élection yi wute naa yi parce que élection gox-goxaat la ku ci nekk bëggoon cee wane sa bopp loolu sax moom ma xiiroon ba ma jël position waa leen yëpp ànd ak man jàpp ci. li gën a neex ci leen mooy ñoom bu ñuy xeex dañuy xeexal seen doom la ñuy xeexal moo tax tey waa Ranouleen xool ñu Idriss Habib Kane la xool te jàppoon nañ joxoon nañ ko Habib Kane quatre-vingt pour cent cette fois ci dañu décidé jox ko à cent pour cent pour ñu jox ko le président Idriss Seck ba nga xamante ni dina ko mën a porté ko bëgg a ba nga xamante ni li mu war a séddu ci gouvernement Sénégal nañ ko ko jox incha allahu karim bu neexee yàlla bu ñëpp defoon ne man bu Sall ñi Macky Sall jox ndigal ci réunion bi ñu nekk ñëpp nee leen dem leen kees topp ci président Idriss Seck bu ñëpp defee ci nekk toog sa gox liggéey rek pour Macky Sall jox ko président Idriss Seck yaakaar naa ni ndam dina am lenn ñoom ñu dul randu leen te randu leen dañ koy jël defar ko ba mu jekk lem def ci saak jox président Idriss Seck ci jàmm bu ko neexee njëganaayoo bu ko neexee def ci posam lu ko ci neex baax na.